ben mbok moñu ñu proposé woon ngir ñu def euh waxtaan ci alhaakum takathur euh fa tabarakallah bañ ci cee euh ñu poser ay questions yu spécial ci walu aljanna ci walu sawara ma def spécial waxtaan ci safara leral safara ak station ya fa nek yépp ak niveau ya fa nek yépp ak taxaway ya fa nek yépp fa tabarakallah ci loolu tamit le ay mbok yu bari tamit wax tamit ne ni ñu defé waxtaan ci safara nañ def spécial tamit aljanna leeral ko bu baax waaye aljanna bi tamit dafa am spécialité dafa am spécificité ndax aljanna tabaarakallaahu dëgg dëgg dëgg jëmukaay bi mooy aljanna incha taala lol moo tax bàkkaar di wat lépp lu la yóbbu ci safara aljanna tamit fa tabaarakallaahu rôle boobu lay joué ndax rôle bi safara di joué ci di la xupp di la tiital di la wattandikuloo bàkkaar di la wattandikuloo lu yàlla bëggul safara tamit même rôle bobu aljana tamit même rôle bobu lay jouer ci di la ñoddi di la xëcc di la encouragé di la pousse ci ngay gëna wut ngërmande yàlla ak njéggalu yàlla waye tamit di wattu lépp lo xamanteni tabarakallah yàlla subhanahu wa taala bëgg ko lu mu digle nga gor góorgóorlu ca su ko defé inshallah taala lolu luñ bëgg léral waxtane aljanna ak ya taxu donc tayji ci jaamu yàlla yàlla nañu ko yàlla subhaanahu wa alaa nangul ñoo ngi ndokkeel jullit yëpp yëpp yëpp yëpp ci dugguk weeru rajab bi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla nangu ko ndax rajab moom mooy euh, annoncé chaaban chaaban mooy annoncé ramadan su ko defee ñetti weer la yoo xamante ni weer yu ama ama am solo la ñoo ngi ñaan yàlla lépp lu ci waay jaamu yàlla lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul bijaahi saydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee Euh, bala ñuy dem ci euh, waxtaan wi dañoo bëggoon rek euh, am xalaat bu rafet bu sell bu bu bu bu bu bu bu ànd ak ñaan jëmale ko ci sunu mbokk yu baax yu fi jóge tabaarakallaahu ko ci jiitu mooy soxna Béti Seck bu sëriñ Ousseynou Njëgeen bu alxaaji Mouhamad Njëgeen ka ca topp mooy aja xujja mbaay bu ma jokkul mbaay bu alxaaji Mouhamed Ndiéguène ka mooy sunu mbokk alxaaji Fall bu soxna mbëru bu sëñ Ousmane jarbaatu alxaaji Mouhamed Ndiéguène ki nga xamante ni moo ci jiitu mooy soxna Béti Seck fa tabaarakallaahu mooy jarbaatu alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu taala anhu nga xamante ñoo bokk ca yoof laata Euh, sax sunu baay alxaaji xuseynu di ko jël macha allahu taala alxaaji xuseyn mooy caatu cheikh alxaaji Mouhamad Ndiéguène soxna biti kon kër nijaayam la wàcc fa tabarakallah waaye ba mu fa wàccee tamit euh, macha allah lépp la nga xamante ni moom la jigéen ñu baax ñu laan def commencé ci sunu maam Aminata Fay al Mubaraka sunu maam. Aminata Diba sunu maam Mariam Diop sunu mu nekkoon jigéen ju baax ju sell ju set ju yiw ju bëgg lu baax ju bëgg kaf ju bëgg jàmm ñun ñi sax danaan ñëw foofu sax dañu léebal ak waaw ay juem du ñu may euh, yaakaar naa ni euh, moom ay jikkoom yu baax bari na waaye man keroog bi ma jotee sunu mbokk mu baax ma di su taawam di sëñ aas baru njegéen bu sëñ useenu Euh, ba ma ko jotee dama ko ah sunu bàjjen de xam nañ ci moom lu bëree bëree bëri waaye man ñaar rek laa ci tënk ñaar ñaar kase laa ci tënk te ñaar yooyu yaakaar naa doy na sëkk benn bu njëkk bi mooy lan benn bu njëkk bi mooy dafa liggéeyal wëlu yu yàlla dafa liggéeyal gën a am solo ci moom ñaareelu mbir mi mooy soxna biti ku ko xam xàmmee nga ko ak lan ak togg waaye togg mu neex waaye togg mu neex teg ca lan di ko joxe nag ak xol bu neex moom yooyu mu nekkoon mbiram mën naa togg toggam dina neex waaye tamit da ko daan joxe néew na ku nekk ca dëkk ba waxuma la ca kër ga néew na ku nekk ca dëkk ba te mosoo loxoom néew na waaw ku lekkul ci nii rek lekk ca ne te yemul woon rek ci togg ndax danaan def ay fataaya danaan def ay ay ay beñe danaan def euh, euh, danaan def ay akara day daan daraan def ay jus daraan def ay croquette daraan def ay ay ay ay ay ay euh, gâteau ñun gâteau lañ koy wax dégg nga yooyu yëpp moom da ko doon def ñëpp mos nañ ci yaakaar naa ni bàyyi tabaarakallaahu euh, nga xamante ni fa tabaarakallaahu soxna biti tamit foofu rek la nekkoon di ko toppatoo nek ci xidmaam diko diko tarbiya ma sha allah yàlla ko yàlla baye sunu kanam yàlla doli wéram sunu baye serigne Sidi waye tamit diko ko jaal tamit serigne Ousseynou Njëgën mi nga xamanteni ni fa tabarakallahu moy caatu al sheikh al alhaaji Mouhamed Njëgën radiallahu taala anhu diko ñaanal yàlla doli fanam doli wéram doli suturam doli teragam ñëpp xam nañu taxawaay bi mu am ci wetu alxaaji Mouhamadul Muniru waaye tamit ñépp xam nañu taxawaay bi nga xamante ni moom laa am ci kër gi ndax gàmm gu mag gi yàlla def na mooy jiite président mooy président comité d'organisation bi ñaanu maam alaaji gi tamit mooy président comité d'organisation bi te yaakaar naa ñun amuñu bés yu gën a rëy ci njëgëneen ci bés yooyu macha allah taala kon yàlla ko yàlla gën a dëgëral gën a dolli wéram gën a dolli suturaam gën a dolli teraangaam bàyyi ko fi ba ci kanam kanam mook sunu mbokk yamu nekkal di suñuy euh, doomi bàjjen waaye di suñuy frère en même temps euh, muy sunu euh, rakk sëriñ As doomu sëñ Ousseynou maam alaaji doomu sëñ Ousseynou macha allah sunu séddoo ndax tur macha allah ah soxna maam Aram maam Aram Njëgën ah, maam Aram Jaw macha allah soxna Adja ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal. yàlla subhanahu wa taala bàyyi leen fi ba ci kanama kanama kanama kanam kanam yàlla dool leen sutura dool leen teraanga dool leen xéewal bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi jaalaale tamit sëriñ Muniru Njëgeen alxalifa tabaarakallahu di jaalaale famille Njëgeen yëpp yëpp yëpp xew-xew bi dal ci seen kaw yàlla na yàlla yokki leeram yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla baal macha allah bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee yu weexam yooyu ba kaalawu ba defaru ah tabaarakallahu ajaa xujja mbaay Euh, euh, keroog ma ne bi may wax ak euh, Maxtaar maa ngi koy wax naan ko sunu maire bi kat moom nii la taaroo te rafet yàlla na mel noonu ci biir ba ak aljanna Maxtaar ne ma sëñ bi maire bi daa mën daa mën aljuma aljuma bésam la waaw midi lu mu teg rek nga gis ko mu sol yu weexam yooyu génn tabaarakallaahu du doxee rek nga xam ni jigéen ju yiw ju sell ju set moo ngay dox di jëm ca jumaa ja waaw daan daan ànd ak di làng nag waayam ja euh, alxaaji Pape Mbaye euh, euh, macha allah moom it mu nekk ca góor ña di dajale barkeelu ya soxna xujja nekk ci jigéen ña ñëpp ñëpp ñëpp noonu lañ ko xamee sëriñ Mounir tamit ku am kóllëre la ndax sëñ Maxtaar moom mu koy wax nee na ma du ma dem mukk nuyu ko lu dul Ngóone Jaañ su ma paree mu ne ma ana Adja aydi Njaay noonu la koy tegle Adja Xujja tamit heure boo musee dem ci moom heure Maxtaar nee na heure bu musee dem ci moom ne ko mu Muniru moo ngi lay nuyu tabaarakallahu mbégte mu rëy la cay am wér-gu-yaram la ca yokko teraanga la ca yokko yàlla na xippee aljanna yàlla na dajeeg góoram yu baax ya yàlla na dajeeg alxaaji Mouhamed Ndiéguène yàlla na dajeeg coono yam daan daj ci bésu sayduna Muhammad ya sallallahu alayhi wa sallam yu ànd bu yàgg yàgg yàgg yàgg ñoo ku jaal waa mbaayeen tamit doo xamee histoire tamit di nga jaale waa njóobeen ndax benn Euh, famille la benn famille la daanaka léegi rek ngay gis sax waaye kër yi amul sax bunt ah tabaarakallahu mbaayeen mooy njóobeen njóobeen moom mooy mbaayeen kon nag waa njóobeen yëpp commencé ci ab Ablaye Njëgeen ba ka mujjee judd ñoo ngi lay jaal waaye tamit sëñ Ibrahima Diop mii di ma filmé euh, doomu alxaaji Mafal la bokk ci njóobeen yaakaar naa lu dal ca mbaayeen rek dal na ci ñoom waaye lu dal ci ñoom tamit dal na ci mbaayeen ñoo ngi leen di jaal di jaal tamit ki nga xamante ji mooy xalifa ba ca kër ga di alxaaji Xuseynu Mbaay tabaarakallahu ah ñoo ngi koy jaale moom it bu baax bu bu Mauritanie ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaale di leen wax ne leen euh, li dal seen kaw ci ñun ñëpp la dal yàlla na yàlla yokki leeram euh, mag ña fa des Adja Aida Adja Ngone yàlla na yàlla dolli leen wér dolli leen sutura dolli leen teraanga bi jaay sayyidina wa nabina mawlana muhammadin salaa sallam ki ñuy mujjëlee di ko jeexalee tabaarakallahu bala ñu dem ci waxtaan bi mooy euh, El Hadji Fall El Hadji Euh, wolof yi dañuy wax ne du deret jaxasoo xaste jeex waaw tey jii nit loo ko xeeb-xeeb soo leen xasee ba sëy rek jeex na su ci doom juddoo rek jeex na c'est fini li may bëgg a wax foofu mooy euh, ndax euh, tabaarakallah bi ma jotee soxna mbaru ah wax na ci moom wax yu daw yaram wax na ci moom wax yu daw yaram waaw nee na nit ku baax la nit ku yiw la nit ku sell la nee na ku ko dimbali la ku ko jàppale la waaw daanaka seen cousin la certes mais daanaka comme bàyyi ci ñoom ah, xam nga loolu nag yaakaar naa doy na sëkk ah kon nag moom it yàlla na daje giir mande yàlla yàlla na dee di noflaayam yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla baal yàlla na ko yàlla suturaal ñoo ngi koy jaal soxna mbaru di jaal askanam yépp ak famem yépp waaye di jaalaale njabootu alxaaji taala géey yépp tabaarakallahu ko ca bopp di sëñ Babacar Gueye ca Amérique waaye tamit di jaalaale soxna far yi may seen mag allahu ku bari teraanga la moom it ndax wax dëgg yàlla daje nañu ay yoon waaye heure bu ñu ko gisee rek c'est le même visage avec le même waaye te ak teraanga yu dul jeex nag wax dëgg yàlla yàlla ko yàlla fay yiw yàlla dundal ko barkeel ko barkeel ay njabootam te tabarkalaaw sëñ Ousmane yàlla dool dolli xéewal yi dolli sutura yi dolli teraanga yi su ko defee euh, dama doon ubbi loolu rek macha allah ngir euh, euh, ko jotaay bi Euh, ndax tey jii li ñuy waxtaane moom la ñuy ñaanal yaay Biti Seck du dëgg moom la ñuy ñaanal yaa Khoudia moom la ñuy ñaanal El Hadj bu biir baw mooy lan aljanna jeex na aljanna daal la ñuy ñaanal ñii ndax yërmande yàlla yi dafa bari ay façon waaye bi ci gën a kawe mooy mu dugal la aljanna yàlla ko yàlla defal ñii ñëpp te defal ko suñuy ndey defal ko suñuy baay defal ko suñuy wàllu ndey def ko suñu def ko suñu wàllu baay def ko ci xeetu sayduna muhammad yëpp yàlla ko yàlla def jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu koy exécuté fekk étudier nañ ko dix ans waaw euh, ñi nga xamante ni euh, dañoo dañuy gént Amérique walla ñuy gént Europe wala ñuy gént yenn mbir yi mais léeg-léeg doo toogee ñoom dan la ciy wax loo xamante ni yow ma nekk ci réew moomu ñu yow yow xamoo ko fa man léeg-léeg ma toog ak ñoo xamante ni Sénégal li ñu xam Paris man xaw ma ko fi pourquoi aljana lañ bëgg mu ne ko suñu xamoon li nekk ci biir aljana danañ gën a danañ gën a namm aljana sama boroom laaj malayka yi ne leen foo leen demoon te moo leen gën a xam lim leen di laaj malayka yi ne ko dañoo demoon ci suuf ndax dafa am say jaam yu dajaloon di la tudd mun leen suñu xamoon li nekk ci tudd ma danañ gën a tudd danañ ma gën a tudd danañ gën a sikkar mu ne leen lu ñu ragal xalam aljana ñett yi la mu ne aljana la fa nekk bët musu koo gis ma laa aynun ra'at wala uznun at nopp musu koo dégg walla xatara ala qalbi bashar benn mbindeef benn doomu aadama musta xalaat musta xalam musta am benn pensée bu bu bu bu xaw a frôler les réalités du paradis lii mooy aljanna mbokk yi waaw donc aljana dañoo wax ne la fa nekk pët gisu ko nopp déggu ko xol xalamu ko xol xalamu ko xol xalaatu ko waaw loolu mooy aljanna kon lii yëpp ay ay junj rek la ay junj kase la mais li mu li aljana nekk dëgg dëgg dëgg kenn du ko xam lu dul ca biir aljanna waaye nag lii dina tax ñu gën a góorgóorlu gën a xam ni fañ jëm am na solo léegi euh, dama bëggoon ñu firi luy aljanna suñu paree vous wax leen toutes les questions qui sont relatives au aljanna dund aljana lay dund na ngeen xam ni euh, gis ngeen doo leen xoolee intitulé waxtaan wi 35 euh, euh, bi suratu al baqara fi subhanahu wa taala di yow aadama yaag sa soxna dëkk leen ci biir aljanna aay boobu lañ jël parce que foofu lañ njëkk a tuddee aljanna avant euh, yeneen ñu koy tudd ci biir euh, surtout baqara ak yeneen saar yi nekk ci biir alquranul karim su ko defee yàlla nee na ko dëkk leen biir aljanna lekk leen lu leen neex def leen lu leen neex waaye bu leen laal garab kii loolu moom tënk na aljana ci boppam aljana mooy lan def lu la neex lekk lu la neex tëdd fu la neex def lépp lu la neex am loo bëgg waaye nag euh, aay bi jàngal nañu luy aljana mooy wala taqraba hazi shajara bu leen laal garab gi mooy aljana ku fa bëgg a dugg xool bu fees dell ak ay plant ay garab hmm? mu ne Euh, garab yi ñoo fees dellu suufu suuf soosu ba kenn du gis la terre tout est vert d'accord deuxièmement garab ya fa sax tamit dañoo njool njool goo xamante ni yëkkatiku yëkkatiku goo xamante ni branche garab gi ah dañuy couvrir suuf si ba jant bi même su tàppee rafet rafet goo xamante ni dafay mel ni ñoom it jant bi du amee sax ay rayon yow doo nekkee ci biir ci biir euh, tool boobu doo gis les rayon solaires leer na donc mhm. loolu mooy aljanna léegi euh, aljanna euh, sooy taaya sax juñu naa ko sanq jullit day gëm aljana comme ni muy gëmee safara comme ni muy gëmee siraat sooy taaya am na ci taaya yi gën a gudd doo waxee ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ngay wax lan wa ashhadu anna alladi jaa bihi muhammadun xaqun wa anna aljannata xaqun wa anna annaara xaqun wa anna siraata xaqun wa anna saacata aatiyatun laa rayba fiiha wa anna allaha yabaasu man fi lqubur lii am am na ci téere yoo xamante ni staye bi soo demee ba àgg ci ashhadu an laa ilaha illa allah da nga ciy dolli lii soo seedee ni amul benn buur bu dul yàlla wala amul ben yàlla buy yàlla yàlla lu tey burul yàlla wala dara amul lu yàlla wala kenn nekku fi kirul yàlla wala noo mënta firi laa ilaha illallah selon ahlu tasawuf ak nitu charia yeeg nitu téere yek nitu ku nekk na nga firi laa ilaha illallah soo ca paree da ngay wax ne maa ngi ni ni ma seede amul benn buur burul yàlla muy laa ilaha illallah seede ne Muhammad yalla ko yónni maa ngi tamit ne أشهد أن الذي جاء به محمد حق لو يرنتي بي اندي دغلا وأن الجنة حق الجنة دغلا وأن النار حق سفر دغلا وأن الصراط حق صراط دغلا وأن آه، آه، وأن الساعة آتية لي نيوخ ساعة موي موجوك جامونو آتية لوي نيو لا موي توكيك جامونو لا ريب فيها كين بي سيكي ساكا امول بن سيكي ساكا وان الله يبعث من في القبر يالا دينا ديكال نيب ني نكون سي بير خبر يي غيسغا سي تري امبورطون الجنة دو اي loolu moo tax euh, aljanna euh, sama borom def ay projection fii ci àdduna loolu moo tax euh, ñu ne aljanna daanaka dafa am aljana yi kaw suuf am aljana aljanay barzax am aljana alaxira am aljana ci biir aljana encore la nekkaat dinaa ko firi léegi ngeen comprendre ko dan aljana fii lañ koy dundee bala ngaa dem barsax ku ko dundul fii doo ko dund fële loolu mooy lan mooy yomal xiyaama du place su liggéeyukaay place su fayeekukaay la kon yow fii nga war a préparer sa aljana pour su ëllëgee nga mën a am nga mën a am aljana loolu lan moo la ko mën a may fii ci kaw suuf mooy laa ilaha illa allah muhammad rasulullah jeex na jeex na soo ne laa ilaha illa allah muhammad rasulullah tey jii soo ko waxoon te nga nga ñëw fii dib tubaab wala di leneen nga wax ko léegi dee léegi aljana nga jëm kon kañ li meey aljana fii ci kaw suuf mooy la ilaha illallah d'accord ñaareelu aljana bi mooy aljana barzax ndax yonent bi nee na bàmmeel boo gis jardin la ci jardin aljana yi wala mu nekk xur ci xuru safara yi rawdatun min riyadil janna aw xufratun min xufari naar d'accord léegi ñu ne foofu tamit lan mooy mbóotu aljana bi nekk ci biir biir barsax ñu ne nuuru laa ilaha illallah leeru laa ilaha illallah muhammad rasulullah tax laa ilaha illallah daf for ñu ne aljana ñetteel bi mooy aljana alaxira yowmal xiyaam laay wax ci bis ba képp koo xamante ni amoo laa ilaha illallah ci sa biir xol su bis baa di nga tiit tiit goo xamante ni adduna bi yëpp seen tiit duñ ko dajale woon ñu def ko ci sa biir xol tiit googu moo koy gën a ngand bi ci des lan aljana bi nga xamanteni ci ngay duggé aljana koku moy tiabi aljana moy la ilaha illa allah muhammadu rasulullah yonent bi wax la ilaha illa allah miftahul janna sallallahu alayhi wasallam moy tiabi aljana legi ci bir aljana tamit am na ñoo dugg aljana rek lañ am mais duñu am ñuy ak sama borom wala sama borom di wax ak ñom moy salamun qawlan min rabbin rahim amna ñuko amul kooku aljana la ci biir aljana des na beneen aljana mooy euh, aljana bi nga xamante ni sama borom day kontaan ci yow dootu la mere ba faw mooy jannatu rida yàlla ñu ko yàlla defal beneen aljana bi mooy lan ci biir aljana encore la nekkaat mooy nga euh, juge ci euh, kàddu gi juge ci ngërëm ji la yàlla gërëm mooy nga jàkkaarlook sama borom am na beneen aljana bu mujj mooy aljana ji gën a mag mooy ñi nga xamante ni kenn ku ci nekk na gis bu keroog bi ñu gisee yàlla am na ñoo xamante ni léegi gis googu chaque jour ñu am ko benn yoon ñii matin et soir lañ koy am ñii chaque semaine ñii chaque weer waaye am na ñoo xamante ni duñ ko gisee dootuñu ja tàqali kook moom mukk kooku ki ci jiitu mooy Seydunaa Muhammad loolu tamit aljana ci biir aljana yi leer na Ibrahim mm-hmm. ñu dem mm-hmm. léegi loolu moo tax ci tënk nit yàlla yi dañuy wax ni aljana ñaar la jannatu az-zaxaarif ak jannatu al-maarif yooyu yëpp moo ngi dugg ci juróom-ñaari aljana yi ci tënk ñaar lay doon jàppal ñaari mu jeex nga noppalu jannatu zaxaarif mooy lan mooy le paradis des ornements mooy lépp loo dégg ci lu rafet lépp lu dégg ci lu neex óoru ay ni yeeg xale yu rafet ya fa nekk ak dégg nga yére yu rafet ya ñuy solog nañuy taaroo seen lal ya mooy le le paradis des ornements kooku moom la ñëpp di sàkku waaye ci biir ñëpp am na ñoo xamante ni am na beneen aljana bu ñuy wut mooy bi ma waxoon mooy juróom juróomeel ba mooy jannatu rida yàlla gërëm la mooy yàlla sotti ci yow ngërmaandeem te dootu la mere ba faw kooku Euh, mooy jannatul maarif yàlla nañ ko yàlla defal bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee euh, li tax góor yàlla yi di wax ne aljanna am na gëm nañ ko ñoo koy sàkku yàlla ñoo ngi koy ñaan yàlla waaye am na leneen lu gën a foor aljana dañ koy sàkku mooy yàlla gis nga dafa am benn sew-sew bu garaawa a garaaw bu ci ne budé amna ci mbokk yi ñu nekk ci ligne bi Ibrahima ci gaay yi ñoom Razil Liek ñoom Mouhamed Diak ñoom Ndiogo gaay nañ noté loolu ak noté yi ma wax yépp c'est très important xoolal aljanna moo ngi ñëw 66 fois dans le Coran aljanna le terme aljanna moo ngi ñëw 66 fois dans le Coran te 66 gaay yi xam nañ ni mooy limu Allah alif 1 la lam 30 la lam benen lam bi 30 H5 la yakarna soko bolé 30 30 ça fait 60 65 66. lol motax gay gor yi góor yàlla yaarifina billaay daal ne deug dëggi aljana moy am yàlla deug deug aljana moy am yàlla lol motax euh ñaan gi ma ubbé kàddu guma wax rek dara du ci gratuit ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار rabbana laa tuzi qulubana baada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ñaan gi moom la yonent bi ëppoon lu muy ñaan euh, ñaan gi soo ko dégloo di nga ci dégg ñaata yoon xasana ñaari yoon rabbana atina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana ñu ne xasana gu njëkk gi am na ci nit yàlla yu bari dañoo wax ni mooy nga am réussite tu àdduna te réussite tu àdduna nee nañ moo ngi tàmbalee ci nga am soxna su baax ñii ne réussite aduna ndax du ñep ñoo mëna am soxna moy nga jubok sa borom ci kaw suuf ma yàlla gërëm la ci kaw suuf nga nangul yàlla jaamu yàlla top yàlla ba yàlla boole la ci radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbahu ñe mo ngoog koku amna ay deg deg yu bari bari legi benen hasana bi wa fil akhirati hasana ñi nee moy aljanna yàlla nañ ko yàlla defal waye ñeneen ñi arifina billahi nee moy yàlla gërëm la yàlla nañ ko yàlla defal kon yooyu yëpp ay dégg-dégg la rek ci aljana am na yeneeni sew-sew ak yeneen dégg-dégg waaye bëgguma buure seeni bopp dama bëgg rek ñu mën a tënku ci lii su ko defee léegi euh, incha allahu taala dinañu ci waxtaan yi ñuy ñëw direct yi ñu war a def chaque jour suñ yàlla dimbalee dinañ war a waxtaanee aljana ci biir alquran te juñu nañ ko dinañ waxtaane les niveaux du paradis te juñu nañ ko incha allah dinañ waxtaanee euh, ñan ñoo dugg aljana ñan ñoo njëkk a dugg aljana avant même yowmal xiyaam di taxaw ndax dinañ wax dinañ laaj tamit ndax am na ay objets yu nekk ci kaw suuf yoo xamante ne aljana la jóge danañ laaj tamit les voies qui mènent vers le paradis danañ laaj tamit euh, euh, aljana ni mu nekkee lu singulier mooy li ma junj sànq. bët musuko gis nopp musuko koo dégg xel musuko koo xalaat loolu dinañ ko leeral dinañ wax tamit ci les gens du paradis dinañ ci wax dinañ ci waxtaan dinañ waxtaan tamit l'entrée au paradis nan la ñuy duggee aljana dinañ waxtaane les portes du paradis danañ waxtaane inshallah dinañ laajte waxtaan poser question ci les stations du paradis dinañ waxtaane tamit les demeures du paradis danañ waxtaane les fleuves du paradis danañ waxtaane l'alimentation les mets du paradis dinañ waxtaane les boissons du paradis dinañ waxtaane les sources du paradis dinañ waxtaane les arbres du paradis waxtaane nañ ko sànq junj nañ ko ci garap garap yi mu solo dernier ah. dinañ les proportions Gourni ak jigéen ñi ñen ñuy upp biir aljana ak lu ko waral dinañ waxtane les femmes au paradis et les femmes du paradis dinañ waxtane liñ wax le surclassement mooy tey nga nek àjjana un nga xey ñu la 3 les ko waxtane moy al ilhaq dinañ les activités des gens du paradis wax laraf moy ñi demul aljana demuñu sawara waxtane les djinns au paradis wala les djinns et le paradis les waxtane du paradis, bi moy le du a aljana doon wax sank gis yalla am ngeerumul yalla yalla ñu ko yalla defal waxtane les visages des gens du paradis seen kanam mooy vingt huitième question bi dañu waxtane liñu ñuy wax xawdu nabi moy le bassin du prophète ñen ñoo cey naan dañu waxtane tamit 30e bi moy question diverse question bu ñew te bokku won ci liñu préparer ñu waxtane ko inshallah légui duñu yàlla dimbalé comme ni ma leen ko waxé yi yii euh dinañ ci dinañ ko léral amna ci ay sew-sew yu ama am solo lu melni ni euh, ñaan googu ñuy ñaan اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته ها نيتي موي مقام المحمود موي لان لان موي الفضيلة لان موي الوسيلة اك نيان نيو سي دك يي ييب دنانكو لاج suñu paree ñu bokk tontu ko insha allahu taala yàlla ñu yàlla dimbali jaay sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam su ko defee kon mbokk yi euh, tënk baa ngoog yaakaar naa tey am ngeen benn idée ci aljanna lan mooy aljanna ak euh, yu ci nekk dinañ waxtaane sew sew yu bari de aljana fan la nekk ak ndax <laughs> yooyu yépp dinañ ko waxtaane hein dinañ ko waxtane bam mu leer naññ naññ naññ toj ko inshallah allah dañ koy def nak par ben ndank ndank ndank ba lépp mat yàlla ñu yàlla dimbali donc euh boudé amul dara luñuy luñuy lu hein ah, baxna donc ñu dem ci français bi directement ñu teug ko rapidement bala ñuy dem donc euh, euh inshallah taala cher frère en Dieu chers euh, amis chers cheminants avec le Coran chers voyageurs avec le Coran nous avons euh, l'honneur et le plaisir encore de vous recevoir et de, de, de, partager avec vous aussi ces moments d'amour, de, fraternité et de solidarité spirituelle. Euh, comme vous le savez, nous avons eu à étudier ensemble avec vous la sorte Takathur et Alhamdulillah, par la suite, on a été interpellé sur certaines questions relatives au, à l'enfer et on a eu à traiter de cela, Alhamdulillah. Et d'autres frères aussi nous ont interpellés aussi pour traiter encore du paradis, pour être juste et équitable par rapport à cette bicéphalité-là, hmm, entre le paradis et l'enfer. Et Masha'Allah, donc nous, nous tenons à euh, faire une, une, euh, une chaîne de, de, de, causerie, de live, hein, euh, dédiée exclusivement au paradis. Et quand, quand nous avons euh, avec le frère Ibrahim Diop euh, des questions relatives, les questions relatives au paradis. Nous avons presque 30 questions et on en a même regroupé certaines. Donc, euh, Inch'Allah, on verra le paradis en tant que, euh, euh, en tant que demeure et dernière demeure des gens qui ont la félicité, qui ont l'agrément d'Allah. Nous allons aussi parler de de, des niveaux du paradis, Inch'Allah. Du, paradis dans le Coran, deuxième, en deuxième lieu. Nous allons parler aussi des niveaux du paradis. Nous allons parler aussi euh, des gens qui sont déjà allés au paradis. Nous allons parler aussi des gens, de, certaines choses qui viennent, qui sont sur la terre et qui viennent du, du paradis. Nous allons, nous allons parler en sixième lieu des voies qui mènent vers le paradis. Nous allons parler aussi, Inch'Allah, en huitième lieu, des gens du paradis. Nous allons parler aussi euh, de l'entrée au paradis, Inch'Allah, des portes du paradis. Nous parlerons aussi des stations du paradis, des demeures du paradis en douzième lieu. Nous allons parler aussi des fleuves, des rivières dans le paradis. Nous parlerons aussi des mets et des boissons dans le paradis avec une spéciale Al-Kawthar. Inch'Allah. Nous allons parler aussi des sources dans le paradis, des arbres dans le paradis, des proportions hein, entre les hommes et les femmes qui seront les plus nombreux dans le paradis. Nous allons parler aussi des femmes hein, au paradis et les femmes du paradis. Nous allons parler aussi des adultes et des enfants, des, adolescents hein, dans le paradis. Nous allons parler aussi de ce qu'on appelle le surclassement, des gens qui, sont, qui étaient au paradis 1, et qui vont être surclassés au paradis, 5 ou 6 ou bien 7. Nous allons parler aussi des activités des gens du paradis. Nous allons aussi parler des activités des, gens de ce qu'on appelle Al-A'raf, ceux qui ne seront ni du paradis ni de l'enfer. Nous allons parler de la relation entre les djinns et le paradis. Nous allons aussi parler de la vision, de la contemplation d'Allah dans le paradis. Nous allons aussi parler des visages des gens dans le paradis. Nous allons aussi parler du bassin du prophète, Haudun Nabi sallallahu alayhi et des gens qui vont boire de ce bassin-là. Nous allons aussi finir, euh, nous allons finir par cela, euh, euh, par cela, cela, par une séance de questions-réponses directes qui, qui vont regrouper des questions qui vont regrouper toutes les choses qu'on a eu à oublier et aussi toutes les interprétations qu'on a eu à recevoir. Donc, aujourd'hui, nous avons commencé notre euh, direct en ayant une pensée très pieuse, accompagnée de nos prières euh, et de nos demandes de, paradis, Inch'Allah, hein, qui est le, thème d'aujourd'hui, euh, pour des êtres qui nous sont très chers. nous pensons à Adja Bétisek, qui est la femme de Serine Ousseinou qui est le fils euh, cadet de Charles Hadji Mohamed Degen, euh, Masha'Allah, qui est connu par sa, euh, son, service sans faute au Wali, au Qutb al-Hadji Mohamed Degen, ta'ala mais aussi pour son amour de la cuisine, de la cuisine bien faite aussi, mais aussi son amour du partage de, la, de, Nous demandons à Allah de la bénir, de, déverser sa rahma sur elle et de la couvrir de sa miséricorde par la baraka du prophète Mohammed alayhi Nous avons une pensée aussi à notre mam aussi, euh, Adja de Majokulmbaye, de Tawar euh, Tabarakallah, de al hadi Mohamed Degen, une femme aussi qui était connue pour son, pour son engagement sans faille à, aux côtés de Cheikh al hadi Mohamed Degen, durant le Maulid, durant toutes les activités euh, de, la Hadra Ndjegenen, mais aussi son attachement indélébile et sans faute euh, à, la grande mosquée de Kermamelage, Masha'Allah. Euh, nous avons une pensée à elle, mais une pensée à son fils aîné, qui est le calife actuel de la famille Bayen, Sering Ousseinou mais aussi à ses enfants et à tous ses petits-enfants. Qu'Allah lui fasse miséricorde et la couvre de son pardon par la barque du prophète Mohammed. Nous avons aussi une pensée très pieuse, accompagnée de nos prières, à l'endroit de El Hajifal, que nous ne connaissons pas directement, mais qui est le cousin à notre, euh, notre femme, entre qui est euh, qui est la femme de notre cousin, Serine Ousmane Gay, euh, le fils de euh, Sohna Ndegen, fille de al Mohamed Ndegen. Donc tout ce qui touche à la famille et concerne tout le monde, nous pensons à elle, nous pensons à euh, à H Nous demandons à Allah de, lui faire miséricorde, de, le couvrir de son pardon, aussi de, l'élever au rang des gens heureux ici sur terre et dans l'au-delà par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, euh, nous voudrions présenter nos euh, condoléances à Mbarou, mais aussi à Serine Ousmane, mais à toute la famille, parce que tout ce qui touche à quelqu'un dans la famille touche tout le monde qu'Allah lui fasse miséricorde par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, euh, chers frères en Dieu, nous avons euh, euh, entamé une autre saison, une autre, une autre chaîne de, de, discussion, de partage, de causerie sur le paradis. Et aujourd'hui, nous, avons voulu seulement nous limiter à, la, à la définition du paradis, premièrement, mais aussi à une présentation globale de, de l'ensemble des thèmes qu'on veut traiter, Inch'Allah, si Dieu nous donne l'occasion, Inch'Allah euh, nous avons dit que le paradis, en réalité, c'est un, hein, le terme euh, paradis signifie un jardin rempli de plantes, hein, rempli d'arbres, et ces plantes, hein, l'herbage couvre la totalité de la terre, hein, mais aussi les branches de ces arbres euh, forment une sorte de euh, d'ombrage. Hein? Et cet ombrage empêche les rayons solaires de pénétrer dans, ces, dans, cette, dans ce, dans ce jardin-là. Donc personne n'est dérangé ni par les rayons solaires, ni par la chaleur. Il y a un très beau euh, une, de très belles images, premièrement, mais aussi une, de très bonnes odeurs, mais aussi il n'y a pas de chaleur qui peut, qui peut faire mal. Donc, c'est ça la définition du, du, du, Jannah. Donc, et comme je dis souvent, il faut toujours savoir hein, avec certitude que le, le paradis n'est pas une utopie, n'est pas un rêve, c'est une réalité. Le premier problème euh, soulevé dans le Coran, c'est le problème de Sédidan, Adam, alayhi salam. Et cette histoire s'est déroulée dans le paradis. Donc le paradis, c'est une réalité. C'est une réalité coranique, religieuse, spirituelle, islamique. Et même au-delà de la religion musulmane, toutes les religions révélées parle du paradis. Même les autres, ceux qui ne sont pas des religions révélées ou bien des pensées philosophiques, ils ont quelque chose qu'ils idéalisent et cela fait allusion au, au paradis. C'est pour cela que, machallah, il faut croire en cela. Ça fait partie des piliers hein, indétrônables de la, de la, foi complète du musulman. C'est pour cela que dans le Teshahut, dans le, dans le quand on prie, après avoir, dit, après avoir dit التحيات لله زكاة لله طيبة صلاة الله السلام عليكم يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كسكون دي اون دي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله souvent aussi on ajoute quoi encore وأشهد أن الذي جاء به محمد حق après avoir témoigné il n'a de Dieu que Dieu il n'y a Dieu qu'Allah que, et que Mohammed est son envoyé Sayyidina Mohammed est son envoyé On témoigne aussi, on témoigne que le paradis est vrai, c'est une réalité. L'enfer, c'est vrai, c'est une réalité. Le, le, passage de ce pont-là, le surat, c'est une réalité. Le jour du jugement dernier aussi, le temps, la fin des temps aussi, c'est une réalité. Allah ressuscitera tout ce qui était dans les tombes. Donc, le fait de croire au paradis, c'est une réalité, c'est une nécessité de notre foi, pour notre foi, dans notre foi. Il ne faut pas euh, euh, penser comme les autres qui disent qu'il n'y a rien après la vie. Certes, il y a quelque chose après la vie, c'est soit al ou bien l'enfer, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Je dis aussi que euh, pour le paradis, il faut comprendre au moins 7 à 8 paradis il y a le paradis terrestre. Le paradis terrestre ne se résume qu'en un seul vocable. C'est la ilaha illallah. Il y a un autre paradis, c'est le paradis du barzakh. Le paradis du barzakh aussi, c'est la lumière de la ilaha illallah. Le paradis du jour du jugement dernier, c'est la ilaha illallah. Le paradis qui ouvre la porte du paradis lui-même, c'est la ilaha illallah. Miftahul Jannah. Le paradis qui ouvre la porte de la communication avec Allah, c'est la ilaha illallah. Le paradis qui ouvre la porte de l'agrément divin, ça c'est un autre paradis. Le paradis qui euh, ouvre la porte de la contemplation divine, c'est un autre paradis dans le paradis maintenant, il y a un dernier paradis dans le paradis. C'est le paradis de la, euh, de la fréquence de la contemplation divine. Il y en a qui, après avoir vu Allah subhanahu wa ta'ala, il qu'Allah nous aide et nous assiste et nous donne le paradis, inshallah Donc, inshallah à l'occasion de ces directs, on essaiera hein, de manière hein, sûre hein, et vraiment euh, Inshallah, Inch'Allah, de faire la lumière sur tout ce qui est en relation avec le paradis. Nous allons euh, procéder, Inch'Allah, à ces questions qu'on va poser la journée pour attendre les réponses des frères et Inch'Allah, l'heure venue de du, du, du euh, l'heure du direct venu, Inch'Allah, nous allons répondre à ces questions. Nous demandons à Allah de bénir tout le monde, de nous donner une longue vie. Inch'Allah, rempli de hasanat, rempli de bienfaits, rempli de bonnes actions. Qu'Allah nous, euh, euh, euh, nous, purifie nos, cœurs et nos esprits, mais aussi nous donne la vie, une longue vie après, Inch'Allah, une longue vie, qu'il nous donne une mort douce, Inch'Allah, après cela, qu'il nous donne aussi une, vie dans le barzakh très posée, InshaAllah avec tous les hommes de Dieu, tous les prophètes, tous les élus d'Allah, mais aussi qu'il nous donne la paix le jour du jugement dernier, qu'il nous donne aussi la paix dans le paradis, qu'il nous fasse euh, goûter les délices de la proximité et de la contemplation divine par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne le paradis et tout ce qui nous aide à avoir le paradis. Qu'Allah nous protège contre l'enfer et nous écarte de tout ce qui nous rapproche de l'enfer. Et euh, que ce soit euh, des choses connues ou méconnues, des choses visibles, invisibles, des choses, euh, des bonnes choses ou bien des mauvaises choses selon les considérations des uns et des autres par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Cheikh Ibrahim, donc vous pouvez question voilà intervention qui qui être programme bu bi xerawloo ngir ñu mën cee jariñ ñun ñëpp bismillah nga sànni ci kàddu ñu soog a ñaan euh, ba suba wala ci incha allah ñoo ngi waajal l'essentiel daal mooy yëpp pare nañ ko incha allah yëpp dinañ ko leeral dinañ euh, leeral yu bëri yoo xamante ni dañ koy dégg rek te xamuñu sax maanaa ba wala lan la doon comme par exemple euh, junj naa ko sànq ci wolof دونو كي يبنى في دونو نور دي بابرة دي في دعوة نيان الله مربى هذه دعوة تام وصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة لن ما يوسيلة والفضيلة فضيلة مويلا وبعثه المق وبعثه المقام المحمود الذي وعدته المقام المحمود مويلا ديك فردوس بيني وخ لن ما يفردوس نخ فردوس بين الجنة ولا أي الجنة يو يب نيو ليرالكو ديك Euh, source d'eau yi nekk ci biir aljana ñu ñu leeral ko dégg nga euh, euh, pont wu aljana ñu leeral lan mooy pont boobu dégg nga les portes du paradis ñu leeral ko lan lan mooy dugal nit aljana lan mooy yëkkati nit ci biir aljana ah ñoo gën a kawe ay daraja ci biir aljana dégg nga aljana lañ ko tabaxee dégg nga yooyu yëpp ñu leeral ko kawsar mooy lan xawdu xawdu nabi mooy lan yàpp ya ñuy lekk ci biir aljana boisson ya ñu fay lekk ci biir aljana dégg nga euh, euh, moo nga ko góor ak jigéen ñi ñan ñooy ëpp aljana yooyu daal lañ bëgg a waxtaane ak yeneen question yu bëri yoo xamante ni yéen tamit loo leen ci bëgg ñu yokk ko ci ñoo ngi leen di déglu incha allah bisimilah Cheikh Ibrahim incha xam naa gars amuñu question xam naa dañuy laaj dañuy xaar ba dugg ci ci ci thème rek ku defee xam naa question yi dina dina ñëw allah hmm. mella khosi gina gaay rek inshallah bisni duggé ci bir rek ma ci mo gëna laaj nak xamna li mom ñëpp la ñëpp la intéressé nak comme ni ko waxé rek nit mom muy aljana muy ak safara te lool moy finalité bi donc faaw jarna mëna xam pour que nga mën ko waaj bu baax donc ñaan yalla yalla rek yalla ñu yalla bolé ci ñu dem aljana amina rabbi nga xam ni ñoy and ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak suñu wëjur yëpp bokku julit yëpp allah jërëjëf ok bisimilah jërëjëf kon si Ibrahima yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla may guddik jàmm incha allah eh, tabarakallahu kon dañ doon ubbi rek incha allah yi ci des yëpp dañuy bëgg rek mu nekk ci diggante 30 eh, minutes rek incha allah suñ defee 10 minutes français 10 minutes wolof eh, li ci des ñu tënk ko incha allah ci waxtaan yi léegi nag li ci des nag ci débat yi ak question yi groupe whatsapp yi ak ñëpp ñoo ngi waajal pour def ci ay waxtaan yu yaatu yu am solo mën a jokkoo incha allah ñoo ngi tamit euh, di ñaanal mbokk yi bu baax euh, seen taxawaay yëpp macha allah waa page Facebook bi sëñ Ousmane Lo ah, tabarakallahu sëñ Ibrahima Diop euh, ci site internet bi Mouhamed Dia sëñ Ibrahima moom it ak sëñ Ndiogu macha allah page WhatsApp bi sëñ Makhtar ak ñi mu àndal ñëpp di ci yëngatu ñoom ñëpp yàlla yàlla fay leen yiw dool leen jàmm dool leen xéwal. liggéey yi ñuy def foofu ca ci vacances yi tamit yépp yàlla ko yàlla barkel ñoo ngi def seen i formation yu baax yu am solo ngir gën a mën a jekku yëf yi gën a xam tamit enjeu yu liggéey bi ñuy def xam ni lu sérieux la incha allah du ñàkk ci bu suba wala beneen bis wala ñoom du ñu àggalee formation bi dinañ ci def waxtaan spécial mooy enjeu wu euh, enjeu wu dëgg-dëgg euh, li ñuy wax réseaux sociaux yi ak communication bi ci euh, nouvelle nouvelle données yi nga xamante ni moo ñëw ci biir l'islam ñun ban taxawaay lañ ci war a am yooyu ñu leeral ko ci incha allah ñoo ngi tëjee tamit di ñaanal bu baax euh, euh, tabaarakallahu sëñ Massamba Diop euh, di nga ki nga xamante ni moo ngi dëkk foofu ci kër maam alaaji nga xamante ni mu ngi dëkk ngent tamit en même temps macha allah waaye waa Thiès la doomu Thiès la macha allah jàngee kër maam alaaji ci ku baax macha allah ba démb mu ñëw seet si mbokki taalibe yi ah, fekk leen ca seen dal ca kër Adja ba yàlla ko fi yàlla bàyyi. waaye ba mu ñëwee tamit mu ziar leen seet leen waxtaan ak ñoom waxtaan yu baax li nga xamante ni moom la ñuy yëngatu euh, di tudd yàlla mu neex ko lool bëgg ko lool bëgg kàddu gi gën a jóg bëgg ñu gën a dégg laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bi ñuy wax tax mu participer bu baax ci tabarakallahu sonorisation ba fa nekk mu def ci euh, taxawaay bu rëy rëy boo am solo boo xamante ni yéen ñëpp yéen a ngi ko gis gis euh, mbokk yi maa ngi gis sëñ Karaka sama sëñ Modi Njëgeen tabarakallahu sëñ Saaliw Luum sama jarbaat sama xarit sama lépp eh, tabarakallahu sëñ Omar Ngalla Guèye ñoom ñëpp ñoo ngi leen di gis ñuy ñuy bind di di bég di kontaan sëñ eh, ñaama mbuub moom it ñoom ñëpp di bég di kontaan ci ak geste bu bu rafet bi sëñ Massamba def ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla fay yiw fay ko teraanga dolli ko xéewal li muy sàkku yàlla teg ko ci loxoom li mu ragal yàlla bu mu ko séen bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru